Maj yaa ngi doon junju sànq loo indi nga ne Sonko. waaw euh, ajaratu daanaka euh, démb askan wi ñu bëri ci ñoom euh, seetaan nañu discours Ousmane sonk bi parce que ñëpp xamoon nañ ni tey jii procès bi dox si diggante Mame Mbaye Niang ak moom lu jëm ci wàllum Prodac moom nag désobéissance civique bi mu waxoon daanaka moom lay wéy di dëngmal parce que daf ne carrément du fas yéenewul wuy ji ki nga xamante ne ni moo di justice parce que gis na ni vraiment. Euh, justice doxalul euh, ni mu waree envers euh, moom jëmmam en personne demoon nañu nag ci mbedd mi xool askan wi seen gis-gis ci boobule kàddu yu Ousmane Sonko yëkkati ñu ànd ceeg lay jàllo ak Abdou Kandji dañoo bëgg lépp loo xam ne lii kilifa yi réew mi ñu ngi koy dogal mu doon loo xam ne lii lu tegu ci yoon lay doon moom nag boo gisee xam naa mu wax ne man euh, demaguma ak déwuma ak yooyu yëpp ay wax la yoo xam ne rek fa yaakaar ne xëy na bu demee dañuy taw dogal ci moom loo xam ne day wuuteeg li nga xam ne moom mooy yoon li nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi nañu doxal li nga xam ne moom mooy yoon xool saati réew mi niñ ko tëralee ñu euh, toppee ko noonu. waaw waaye itam xam nga tëral lii ba noppi wëlbatiku daa def leneen lu wuute ak li nga xam ne moom la constitution bi wax loolu aussi itam du noonu que Ousmane Sonko aussi itam moom citoyen la. ñi nga xam ne ñooy kilifa itam ñu topp constitution réew mi loolu itam moom mooy yoon daal. waaw waaye du caagin wax lii def lee itam vraiment loolu tamit nag euh, ah day na waar ah. xam nga nit moom demee ba jël ay am rek xëy na am na fu wóor fu mu ko teg. bi ñu ko dalee seetaan moom moo dem ba nii daal dootul dem xëy na am Sénégal daal jàmm war fee mën daal kenn ku daal dox ci indi jàmm ci réew mi tey jii boo xoolee daanaka projet bi gàllankoor na lu bari. même donte tey Sonko bu nekkee pouvoir tey nga jël exemple moom mooy teg justice am donc justice am moom nu mu bëgg noonu lay on sait jamais am nañu espoir ci moom mais est ce que moom tamit bu toogee justice bu muy ñàkk noonu justice bi baax na wala baaxul est ce que il ne va pas trahir aussi le euh, peuple donc ñu ne dañuy tëj Sonko peut-être mun nañu ne il ne sera pas présent wala duñ valider candidature mais kenn du ko tëj procès Sonko bu amee day handicapé circulation bi day handicapé élèves du ñu jàng tu imagines yaa ngi fay sa doom tu vois lu muy handicapé par journée c'est des milliards c'est très compliqué donc il faut que ñoom moom ak nguur gi ak euh, moom ak justice bi Sonko ñoom ñoo war a mën a euh, tëj affaire bi boucler ko détails yu muy sulli bul sulli yëpp waaw moom lu muy sulli moo bëri quoi lay sulli lu bëri na waaw na wàññi sulli voilà ajaratu mi ngi noonu euh, nit yi nag ku nekk ak sa commentaire bi ngay euh, def ci euh, discours Ousmane Sonko bi Omar mu mel ni démb déglu nga Ousmane Sonko si discours bi mu jël ak décision bi nga xamante ne ni jël na ko mu nekk loo xamante ne ni daal gars yi gis nañ ni que mën na ko jural yeneen jafe-jafe. xam ne démb nag pour la première fois Ousmane Sonko di wax seetaanu ko. Mm. waaw démb peut-être li nga ci wax nii laa ci am. Mm-hmm. waaw euh, parce que dama nekkoon ci leneen. waaw ah, mais comme Ousmane Sonko moom waxam moom du umpe. Mhm. maanaam boo ci jotul sax en direct ci jotaat après. Mhm. waaye eh, dogal ba mu jël moom moo ko médité ak ay avocat ba xam lu tax mu jël ko. Mhm. mais aussi am na ay conseil ci wàllu politique am na ay conseil ci wàllu yoon. kon moom bu demee bu jël dogal am na fu mu ko teg mais aussi xam na li ko ci mën a fekk. léegi nag bu doon yoon dafa jaar yoon moom dina nekk ci yoon bi. la wax sax. mais bu dee ni yoon dafa jeng. Mm-hmm. na ku ne doxee nu ko neexee. Mm-hmm. maanaam balaa ngay teg nit ko ci yoon. yow mm-hmm. da ngay nekk ci yoon ba noppi. mais Sénégal da lay bëgg a teg ci yoon teg ci jaar ci ñal wi. looloo tax de ma koy nangul moom dogal bi mu jël. te ci jamono jooju ñu ne Ousmane Sonko carrière pour mu dem élection dafa nekk ci loxo yi justice su Sénégal ñu ne carrière dafa nekk ci loxo yi nguuru président Macky Sall. loolu pour la première fois mi am ci nguuru Macky Sall maanaam ñu naan ay kandaa war nañ dem élection mais seen élection mi ngi sukkandiku ci dogal bu yoon war a jël mais aussi dogal boo xam ne nguur gi lay neex wala mu nax ko neex parce que appel bi am bu neexoon nguur gi doo am jamono jooju ñu ne Ousmane Sonko sa carrière te ci lan la ko tudd moom tooñul réew mi Ousmane Sonko ñu bari danaan na dem yoon na dem yoon aji saar la joteel ci bi ñu jëm fee bi Mame Mbaye Niang kon ay nit la joteel may ay civil comme moom. ñu gis ñoo xam ne dañ ne la dana tooñ réew mi Khalifa Sall ñu ni ko alalu réew mi nga fopp te waroo kon fopp Karim Wade ñu ni ko ay centaine de milliards alalu réew mi sa Seck mi naam am na nool yee waaye ci alalu réew mi la nga ko daan tudd Mame Mbaye Niang ma muy toogal tey jii ci alalu réew mi la nga ko tudd ñooñu ñëpp dañ leen jiñ ne doonoo tooñ réew mi ñooñu mën a am droit bu Ousmane ko amul maanaam bu dee Khalifa mën na waxtaani nekk candidat bu dee Idy mën na waxtaani nekk candidat bu dee Karim mun na waxtaani nekk candidat léegi ñi tooñ réew mi tey jii ñi leen di jëñ alal réew mi mën a nekk candidat ñoom ci loo xam ne mën na lu ko lijjanti wax ko dox ko kii koo xam ne ay nit la joteel comme man ni ma mën a joteeg yow joteeg keneen kooku tey ji mën a am jafe-jafe yu toll nii ñu ne yoon am na ci réew mi est-ce que bu yoon tëdde woon njaaxaanaay lii lépp di dal ci ko Ousmane ko dina am maanaam appel boo xam ne Euh, moom am na droit def appel ci weer semaine ñu dóor ko appel te teguñu ci ay fan ñu ne tey jii nanu ko àtte ci appel ñu ne semaine bii di ñëw bu jugee ci lii naam bu ci rëccee am na beneen bu koy xaar ci yoo xam ne ay dossiers ñi ngi nalaw ci kanam gu yoon am na ci ñoo xam ne ñi ngi fob alalu réew mi ay cour des comptes ci mbiri corona yooyu yëpp doon ay mbir yoo xam ne ñi ngi nalaw ci wàllu yoon ñooñu tey jii ëpp sañ-sañ Ousmane Sonko ci réew mi tey jii Ousmane Sonko bu ko neexee mën a yoon googale wóoluwuma ko mm. loolu droit am la li Seydou Lamine Niass doon wax naanaam léegi nekkuñ ci justice mun na am danoo nekk ci sos tiis maanaam da lay sos ba pare teg la tiis mm-hmm. moom bu jàppee ni moom loolu lañ ko teg mais bu ko neexee mu ne man la yoon wootee du ma ca dem léegi nag mu assumer les conséquences parce que aussi loo gis ci àddina ndama ngi ci mais gàccee nga ci mais l'essentiel mooy nekkal ci dëgg rek d'accord Omar li ngay wax tout à l'heure euh, li koy dëggal rek mooy que ni euh, carrière politique am dafa des ci justice wala euh, président Macky maki Sall le fait que président Macky Sall mhm. moom bu Ablaye Wade defoon mhm. ni carrière moom politique am mhm. day nekk ci loxo Ablaye Wade mun na am tey jii du egg fii mais Ablaye Wade da ko bàyyi mu jàll keneen ak keneen ñu bàyyi mu jàll mais pour la première fois au Sénégal ñu ne ñi ngi dem élection ñu ne ki ki ngay wujjeel sa carrière moom mi ngi nekk ci loxoom. nekk ci li koy dëggal rek. keroog dama déglu Maodo Malick mbay bu Thiès mu wax carrément que ni ku demul wuy ji euh, président Sall ci dialogue bi rek mooy rek nga sa bopp politiquement mooy say affaire dootul ndox. tey Khalifa Sall Mbaye Ndiaye mi toogoon na fi mu wax benn baat. Mm-hmm. mu ne bu àndoon ak ñun du dugg kaso mm-hmm. Mbaye Ndiaye. Mm-hmm. mos ko bi mu amlantee ak mbiri caisse d'avance est-ce que ñoom nag tey jii ñu réew mi ñoom ñoo ko moom ba mën a définir carrière nit ñi ci wàllu politique ça veut fi ñu yóbbu Sénégal moo dul yoon ni Macky sañee doon candidat ba doon président ci réew mi nan bàyyi ñeneen doon candidat doon président ci réew mi d'accord sukkay na naka nga gisee discours Ousmane Sonko bi dem ba. baax rek seetaan nga ko. baax rek baax. Mhm. mais su koy nag yow tamit teguñu la fi nag pour ngay. Ah, wax ah dama dama wax yow tamit baax na rek baax na loolu laa mën a wax de. du noonu nee na kay baax na de bu mu dem. loolu rek nga si gis. alaaji. <laughs> <laughs> su koy. day jaaxaan quoi. baax na kay. allah am na solo. waa xam nga man jàpp naa ni fi nit ñi di defee njuumte. li Omar wax sànq bon lenn la ci man pour man que ni maanaam boo xoolee nii day mel ni noonu la demee mais man damay jàpp ni mbir yi romb na. président Macky Sall romb na justice man jàpp naa ni mbir yi loxob sunu borom a ngi ci parce que bu fekkente ni depuis ñaari at ba ñetti at wala ba ba ngay tàmbali ba bañ koy dàq buñ ko jëlee sax ci Ousmane Sonko biñ koy dàq ba nëga ni 2016 mm. ak léegi ñaata at la euh, ñu ngi ci huit ans 2016 mm. ak nëga ni sept ans ñu ngi ci sept ans yoo xamante ni yaa ngi am benn bëgg-bëgg bi ci nit mais chaque jour am lu koy gàntal maanaam damay wax ne bu dee nit koo xam ni kuy réfléchir nga di xalaat war nga xam ni lii du jàmbaar waa ji kese xam nga Ousmane Sonko dañ ko accuser li gën a garaaw nga xamante ni bii tey góor guñ ko accuser say moroomu góor lay gën a bañ ne danga nga néewal doole jigéen maanaam góor guñ wax ndek say moroom góor a lay njëkk a jéppi mm-hmm. waxuma la jigéen ñi nga xamante ni bi ni ñu bañee góor goo xamante ni gi def na lool mais maanaam dafa mel ni foofu la benn déclic amee mu gën a dugg ci xolu nit ñi loolu pour man du mbiru nit am na leneen loo xamante ni bi mi ngi ci mbir nga gis jeunesse bi nit ñi nga xamante bi noonu lañu accroché wu ci mbir Ousmane Sonko ni mu leen yitteelee Ousmane Sonko mooy wax benn télé jarut ñuy def programme bu dul Ousmane Sonko. Mm. parce que boo defee programme kenn seetaanu la <laughs> loolu du lu ndaw Ousmane Sonko yi jaar fii nit ñi dañuy daw di ko song mm. nit ñi di daw di jël xaalis di ko jox mu am benn espoir boo xamante ni bi juddu na yaakaar goo xam ni maanaam dafa bëtt frontière yi parce que yematul rek ci Sénégal nit ñi di wax Ousmane Sonko mais da ngay gis yeneen nit ñoo xamante ni bii dañu épouser discours Ousmane Sonko ni muy waxee nga gis ni dañ ko jël def ko seen moomeelu bopp nga gis ay africains yoo xamante ni sax peut-être nangu lu ñu woon Sénégal ay dëkk la ñuy wax parce que ku ci nekk da ngay xëcc sa dëkk mais nga gis ni léegi ñoom dañuy jàpp ni ci usman Sonko la Afrique war a jaaree ngir mën a yegg fenn fi loolu yëpp man su ma koy gis def en face man bu tey bu ma nekkoon place bu président Macky Sall damay xam ni lii doonatut mbirum politique kese lii doonatut mbirum kii kese mais am na leneen loo xamante ni bi suñu borom euh, mi ngi koy bëgg a def mm. man te et dafa am jaar-jaar boo xam ni am nañ ko parce que jaar-jaar bi ñu am mooy fexe woon nañ ba toll nañ jamono joo xam ni Macky Sall nguur gi rëcc na ko mooy bi nga xamante bi ci lay wax ne sénégalais yi déglu naa leen te dégg naa leen. léegi nag man jàpp naa ne am na ñeneen ñoo xam ni ñëw nañ gëmloo ko ne ko nit ñi dañoo xiifoon nit ñi dañoo mar corona bee leen sonal et cetera et cetera mais ci jamono jooju dañu war a tenir compte ci dara parce que ci jamono jooju sax am na ñu doon dute di wax ne Ousmane Sonko de lii ñu ko tuumaal dëgg la ñi wala du dëgg seen xel a ngi xel ñaar mais par contre ci diggante bi. dégg nañu fi lu ne ba dégg audio yi ndaw si ci jëmmi boppam muy wax di jéem a naan day tiital ñëleeg bu ñu ko defee nii ak bu ñu defee nii comprendre mhm. wëlbatiku mu nangu ni ñu ne nangu na ni audio yi audio la loolu la ki kii wax mhm. ne waaye da doon kaf Sonko wax na ko l'autre jour ne nee na dafa wax ne man la waaye dama doon kaf <laughs> comprendre nga maanaam mu am yu bari yoo xamante ne bi tey ña nga xam ne dañ doon jiixi jaaxal dem nañ ñoom ba li ñu observé am nañ yaqin ni kon ndekete lii ñuy wax amut comprendre nga te pourtant les mêmes sénégalais yooyu ñoo fi nekk ba nëgët bon ñu nekk ñu jël nag réew mi teg ko ci loxool président de la république man jàpp naa ni démb discours bi nga xam ne moom la Ousmane ko def am na loo xamante ne bii moom moo ko moom. Mm. pour xamal ko ne ko ñi lay puus. ñooy ñi daan ba ma xam waat Wade parce que tey même personne yooyu ñoo nekk ak ki nga xam ne mooy président Macky Sall dafa am foo xamante ni fii tey président mën na génn ci mbir mi pour man ci ak dal mais ci kaw mu mesure waat mbir mi jël ay bëgg-bëggam teg nale teg bëgg-bëgg Sénégal parce tey jii defe naa ni bëgg-bëgg Sénégal rek moom la ñu war a jël jiital ko muy Sénégal rek la ñu war a xool ci mbir yi bañ a xool diw wala diw parce que ki sénégalais yi jublu loolu sénégalais yi ko jublu. Mm-hmm. parce que tey defe naa ni bëgg nañoo na tëj xalifa Sall tëj nañ ko Karim Wade bañ ko bëgg a tëj dañ koo tëj mais boo demee ci biir bii mënta ne jusqu'à présent war nga xam ni y a quelque chose boo xamante ni bi am na mbir moo xamante ni bi am na donc li may wax. Euh, di dellu encore une fois euh, di ko wax président de parce que jàpp naa ni man ñeneen ñëpp ay euh, kii lañ quoi nekkuñu loo xamante ñu peser lu bari lañ quoi moom rek moo mën a jël décision boo xamante ne bi tey réew mi nit ñi dinañ mën a xëy ci jàmm di wàcc ci jàmm di dem seen kër di kii te loolu mooy li nga xam ne mooy li nga sénégalais yëpp bëgg tey jii lenn rek man tey jii bu fexee ba Sénégal am dal pour man réussir na li nga xamante ni bi mooy mission parce que fis réew mi toll bu ñu fexee ba dugg ñu ci guuta pour man réussir na euh, diggan diirëb mu fi lool loolu rek mën na tax lépp loo xamante ni mës na xew. man ma ne dinañ ko ci bàyyi parce que boo dégloo yéen question ay àndandoo ñooñu di ànd ay seen kilifa la moom moo yor dogal bi. Hmm. ñooñu amut lu ñuy teeg lu ñuy bàyyi ñooñu. Hmm. Euh, ay figurant lañ rek ci mbir mi. lu ñu ci dara. Hmm. ñooñu nekk président Macky Sall mooy tax ñu ne comprendre tey jii moom la sunu borom def ci moom li mu def ci moom ba mu gañee lay Wade diriger réew mi 12 ans yoo xamante ni bi sénégalais yi nangul nañ ko mu yor ko réew mi te sénégalais yi dañ koo xeexal pour mu yegg si moom tey fi mu yegg si mm. sénégalais yi boo ko laalee bii ñuy waxal Ousmane Sonko moom lañ ko doon waxal ay jamono mm. di wax naan ko boo ko laalee di ko wax président Macky Sall mm. yaa ngi dégg kon sénégalais yi joxe nañ seen bakkan tamit ngir moom peuple boobu nag am na leneen lu mu mérité lu dul ñuy dugg ci guuta te moom mooy yor clé bi nga xamante ni bi mooy ubbi buntu jàmm ji donc nañu ubbil bunt bi nga xam ne mooy buntu jàmm ji sénégale yëpp dugg ci ñu mën a xam ni kat président kat wax dëgg fa yàlla mhm. def na lenn ngir sénégalais yëpp mhm. du président APR président PASTEF la président PDS la mooy président sénégalais yëpp képp koo xam ni sénégalais nga mooy sa président mhm. yaa ngi dégg moom la yàlla teg ci kaw caabi jàmm ji nag mu ngi ci loxoom donc nag vraiment ñu ngi koy ñaanaat encore une fois ngir loolu nga xamante ni bi moom la sénégalais yépp bëgg mu wuyu si leen ci d'accord jërëjëf waaw man li mu wax ba pare sax amul kenn amatul loo ci yokk parce que man seetaan dégluwuma discours bi seetaanu ma ko en fait boobu fekk na maa ngi woon di kër ci kër ci dégluwuma ko mais bon man daal damay rejoindre ça de à 100 pour cent parce que nag dañuy toll benn période boo xamante ni nañ leen nañ leen ñaan jàmm dañ leen ñaan jàmm parce que parce que man yi ma gis léegi ak yi may dégg léegi mosuma koo dégg donc Sénégal la wax moom président Macky Sall moom la yàlla teg ci bopp réew mi kon na commencé jàmm ji ñun ñëpp ñu am jàmm opposition fekk si ak ku mënti doon waxuma sax Ousmane Sonko mais ñëpp laa wax man Sénégal yëpp laa wax vraiment. di nga dafa am cas yu gën a grave yoo xam ne adduna bi dund nañ ko france François Fillon dafa am leen teg yoon France. mais amul ba ba élection yi di ñëw moom moo dem ba bokkul parce que dana woon na ko bàyyi ak français yi ñu jugé ko comme moom moo leen bi bëgg a jiite parce que élection présidentielle rendez-vous nit ki la ak peuple mm-hmm. kon kenn warul dox seen diggante mais moom moo dem ba jàpp ni li ñu koy jiiñ peut-être ci wàllu yoon moom mu rocceeku. Mm-hmm. ji nga boo demee Niger daa am ku ñu doon wax benn waaye Ama Amadou yi mm-hmm. nga Ama Amadou prison la nekk yóbbu président bi deuxième tour maanaam dañ ko tëj mu dem deuxième tour ak président Niger bi nekkoon. maanaam kook teg nañ ko ay daan mais amul fu ko yoon gàllankooree mu bañ a bokk ci élection nekk na ci prison bokk ci élection parce que dañoo jàpp ne mook peuple bi peuple bu ñu mënee fal ab njublang wala ab prisonnier loolu peuple bi ñoom ñoo koy assumer loolu élection présidentielle nga dem Brésil lu yàggul Lula da Silva dafa ñàkk réew ma ñu dugal ko kaso bi mu génn dafa màgget ak sikkim beeg doon mag mais dañ ko falaat mu doon président Brésil parce que Brésil ci diggante bi am nañ fi ñaari président mais biñ demee ba ñaar ñuy doxul dañ ne Lula nakate jàpp nañ ko tëj nañ ko jiñ nañ ko lu ne nekk lu laa moo gën ñii mm. ñu génnee ko ci kaso ñoo falaat ko président mm. kon peuple bi daf ci am loo xam ne ñoom ñoo ko moom mm. na leen ko bàyyee Ousmane Sonko violeur la son ko dafa diffamé Mame Mbaye Niang mais nañ bàyyi peuple sénégalais jugé ko ci urne yi mais du ay nit ñooy toog fee nekk dix personnes ñetti nit di définir carrière nit ñi loolu du yoon président Macky Sall mënul nekk juge ba pare bëgg a nekk parti. ku ñëwul ci dialogue bi sa yaay ay. Mm. mooy ku ñëwul mën na am. mooy loolu ñuy toog di wax ne ku ci ñëwul rek daanaka. tey ci gën Sonko. Mm-hmm, mm-hmm. ñoom dañ leen jiñ ñu ñoo tooñ Sénégal ñoo jël alalu Sénégal. Mm-hmm. alors que moom lan la def Sénégalais yi benn Sénégalais doo du toog ni lii la mu Sonko def. ndaxte lekkul seen alal te sàccu leen. en tout cas mi ngi noonu ajaratu euh, en tout cas jàmm ji ngeen di wax daal yàlla na ko fi yàlla suñ boppam saxal parce que ñun ñëpp loolu lañ bëgg na sukaa sukaa mbaay déggoo ma ne ko mere naa la ma am sama rubrique laaj la nga naan ma loolu baax na sukaa loolu mooy lan tamit ajaratu jërëjëf yëpp baax nangul ko rek oh, maa nangul ko rek ay ñu ngi lay remercier mage ma jigéen Diop Dieng Sall